Euh, PUR PASTEF PDS ak Manko taxaw muy la coalition euh, des grands mi ngi woo ci noonu itam opposition bi yëpp ñu euh, joxe seenuk loxo doon benn ndax askan wi ñoo soxla loolu jamono ji ci biir xibaar itam daan wax ci wàllug immigration mbëkk mi Sénégal mi ngi wéy di ñàkk ay doomam ci géej gi bu ci mujj mooy embarcation bi nga xam ne moo chaviré ca Saint-Louis waaxu Saint-Louis bëri na itam ci ay nit yi ci réer kenn gisu leen am nit yi ci faatu itam an yan yoon nañu war mën a jaar ngir xeex lu jëm ci mbëkk moomee eh, ci biir xibaar yi ah, daan ci eh, gën a yaatal daanu wax itam ci lu jëm ci conseil national consommation bi nga xam ne ah, fas yéene nañ ko dalloo ni ki tey ci eh, talaate gile ci teewaay jëriñ gu ñu dénk wàllu ko njënd meek njaay mi moom Aminata Assome jaata ah, fas yéene na waxtaane lu jëm ci yokk gi ñu nemmeeku ci njëgu dund gi lii moo gën a fas mbokk yi ci xibaar yi ci yaatal ne suñu faram fàcce ko xibaar yi coog yaatal fas yéeneen ko yaatal ak eh, El Hadj Mamadou Mansour eh, léegi lay doon na dañu koy eh, tàmbalee ak révision list électorale yi nga xam ne mi ngi wéy di bëri coow lool bi ci mujj nag mooy ca Médina foofe nag njiitalu bokk moomeel ba dafa daal di artu kilifa yi nga xam ne moo di sous-préfet beeg yi ne mel ci ñu mayu ci daar daar lu jëm ci certificat de résidence ak transfert d'électeur ñu nemmee ko ci gox goxaan yi moom nag li mu wax mooy Médina googee Euh, du ci bokk tey te du ci bokk ëllëg te dina taxaw temm ngir xeex li ni mel euh, bu ñu sukkandikoo ci maire euh, Bamba Fall lu jëm ci wàllu fraude soxal liste électorale yi dafa war a dakk ndax yàgg na fi ci mim réew ñu teew lu ci Fatmata Diop. maire bu Médina nee na déet ci la mu duppee manœuvre antidémocratique bu jukkee ci sous-préfet bu Dakar lépp lu jëm nag ci révision yu liste électorale yi lée boobu ba léegi xam nañu Médina luy métti seen boppa la waaye nañ gëm yàlla nag dara du ci sotti. càcc gi dafa setul duñu ay pro seen càcc gi ñu bëgg càccantu gi dafa setul tey yaa ngi jël ay quatre camions gen quatre camions policiers di di intimider waa Médina yi teg ko ci buntu stade bi mais pour lan. Bamba Fall yokk ci ne duñu accepter benn transfert ndax nag Médinois yi euh, foofu ca Médina la ñu bëgg a lu nekk carte électeur bi nga teg fii armée bi yëpp du tax carte électeur du tax certificat de résidence sous préfet jàll sous préfet sous préfet. il faut ñu fàttali ni la doo représentant parti politique am na lu lu jiitu conférence de presse bi maire bi di Bamba Fall nag dañu ko rek bañaloon accès bi ci biir stade Iba Mar fi nga xamante ne la ñuy amaleel bile révision laata nag police bi di ko autoriser mu daal di dugg. dañu des ci wàllug politique ba léegi ak coalition présidentielle bi nga xam ne boo moyul laata élection yi ñu jëm daañu xajatloo euh, ba tas tasaar euh, rawatina sax ci diggante parti socialiste ak APR googe ndax bëriwaana ci ay gox yi nga xam ne euh, déggootuñu benn yoon ci élection yu ñu jëm mooy bokk na ci commune bu Sindia Diass ak Ndiaganiao Joal ba jàpp mbuur foofu yëpp maire socialiste ya fa nekk déggoowuñu ci seen bopp ak seen allier yi nga xam ne ñoo di Alliance pour que ci élection yooyu ñu jëm dañu ci ànd ak Aline Badara Sonko ci ay leeral xeex bu métti lañ nemmeeku jamono ji ci coalition Benno Bokk Yaakaar bu département bu Mbour rawatina ci ñu fare parti socialist ak waa APR d'abord ca commune bi nga xamante ne mooy jas foofu directeur général bu COSEC di du Ndiond ak maire bi di Cheikh Tidiane Diouf bu parti socialiste ñoom jamono jii ci xeex bu métti lañ nekk ca commune bu Sindia gannaaw Thierno Diagne maire bi ba mu déclaré candidature am directeur général bu Petrosen di Mamadou Faye moo faqee ca làng ja ne candidature bi du fa dal reconnaître Thierno Diagne comme le candidat de Benno naka noonu ca njagañaaw foofu nag waa parti socialiste ca dimanche bi ñoo doon amal seen ndaje ñoom nag li ñu wax mooy il n'est pas question que waa appaire jiite seen liste naka noonu fii ci diwaanu mbuur jamono ji maire bi di Fallou la fare ci parti socialiste moom nag maire bu futtu la def jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñoo fare ci benn bokk yaakaar ndax moom dafa jàpp ni waa APR dañuy politiquer li nga xamante ne mooy inondation yi pour mettre ko en mal ak population yi yor di wër dëkk bi di wax ni au nom du Benno Bokk Yaakaar affaire bi du affaire u Benno Bokk Yaakaar en tout cas ak li ci mënta am parti socialiste bu fa Ousmane Tanor Dieng cosaanoo fii ci diwaanu Mbour jamono jii diggam neexul dara ak aliem bi nga xamante ne mooy président Macky Sall fii ci département bu Mbour à quelque mois des élections locales Aliou Badara Sonko jërëjëf dañuy àddu wax ci euh, accident bi ñu nemmeeku ci euh, euh, waaxu Saint-Louis ak mbëkk mi mu doon def ab gaal ba ñu ci bëri réer ci ay nit yi tam faatu ci jàppale ne seet gi mi ngi wëy ba léegi ci ñi nga xam ne ñoo di rek parents yeeg proche disparu yi mu mel ni kon jamono ñu àddoo ngeen di teelu ci ak jaaxle la ñu nekk ñi ñu respecté rescapé ñoom ñoom ay rescapé la ñu maanaam dañoo rëcc ci boobu lekk accident ñu ngi leen kon jamono ji déglu ci police am nañu sax ñun ci bàyyi ba noppi ca Saint-Louis googee xëy na daan ko gën a yaatal ak itam euh, Babacar Niang ci sunu yeneen xibaar yi dëkk xanaa rek toftal ci wax ne euh, kenn ci ñi nga xam ne euh, ñoo faatu ci boobu lekk accident ab li jëm ci jëm moom kooram kon gis nañu ko loolu lépp daan ko gën a yaatal ñu wax ci wàllug wér-gu-yaram ak collectif des médecins pharmaciens chirurgiens dentistes en spécialisation yi ñoom nag gis nañu ne lu jëm ci seen grève bi commencé nañ ko kon euh, daal di euh, tabbi euh, wax ci itam jafe-jafe yi ñu ci amee bokk na ci ndaje bu am solo bi nga xamante ni autorités yi ministère de la santé am nanu ko service Abdoulaye Diouf Sarr ñoom nag jël nañu ay engagement ferme ngir lépp lu soxal seenu ay mbébét ñu daal di koy respecté nu mu waree wala mooy ñoom nee nañu lu ko may daañu gën a tabbi ci gerew bi nga xam ne ñu ngi koy annoncé boobu léegi dañu ciy teewlu docteur Mbaye Sène mooy secrétaire général bu commerce ak Younousa Baldé njëkk mooy lu ñu tuddee statut réponse bi autorité bi indi ci question boobu mooy dina def mise en place donc comité de pilotage national qui va réfléchir sur la question dans les jours à venir moo tax le mercredi 1er septembre ministère de la santé woote na réunion bu am solo pour mettre en place les jalons qui vont aboutir ci li ñu tuddee statut du médecin ñaareelu ponc bi taxaw ñu dem grève mooy prise en charge médicale loolu tamit autorité bi nee na la prise en charge est effective et elle est transversale dans nos hôpitaux publics troisième point grève bi moo nekkoon lañ tuddee motivation hospitalière vingt cinq pour cent recette hôpital dafa war a dellu ca ña ko liggéey mu ñun ñu jàppoon ne liggéey hôpital kenn ëpp ñu ci solo donc motivation bi dañ cee am trois donc globalement loolu mooy li génnee ci réunion bi buñ ko évaluer aussi ñëpp d'accord nañu ne nañ dellu ci liggéey bi Haj Mansour lu jëm ci euh, bindu ci liste électorale yi njaw ma nga cay desoo xam it ba léegi ndax euh, njiitulug bokk moomeel bu Médina moom yëkk nit ci ay kàddu wax na ne mi ngi artu ne du nangu benn yoon ci commune boobee ñu di ci def ay transfert électeur wala ñu ci njuñ njaaj jëm ci wàllu liste yooyu. en tout cas li mu wax dafa leer et dafa préciser ay propos am. yoo xamante ni bii nag faw kilifa indi ci solution parce que def ni. am na ñu jox ay certificat résidence. Mm-hmm. ñu bàyyi ko ci sous préfecture. te loolu parce que mairie bi. gàntalul kenn nga am certificat de résidence te moom moo xam ni dëkk Médina. Mhm. benn ñaareel bi ci des am na benn centre de vote bu waa Médina di voté te nekkul Médina ci commune bu euh, Dakar Plateau la nekk. Mhm. mais loolu ay manquement yu ñu war a rectifier la ci bu gaaw. Mhm. loolu wari woon sax egg ci presse bi. da ko waroon aw la ko ci kilifa yi ñu daal di koy saafara ci ni mu gën a gaawee. bu ñu ci narul ak jub nag dañuy continuer persister mais foog nga def leen face. parce que commune boo xam ne ay école am jeexuñu. Mhm. ay espace yu ñu mën a ubbi centre de vote jeexul. Mhm. kenn du nangu ñu leen di ubbil benn centre de vote ci beneen commune. mais mhm. loolu loolu koy leer na bu fekkee na nañu ak njub Mohamed. mi ngi noonu paasan kon wax na ne itam lu jëm ci wàllu fraude yu ñuy nemmeeku ci liste électorale dafa war a dàkk ndax yàgg na ci gox goxaat yi euh, te loole mën na jur sax jéyee ci diggante camp yu bari. en fait dafa dafa am benn euh, Cheikh Gueye bu Derklé. il a dénoncé la même chose euh, démb xaw ma barki démb et ce qui est ce qui est bizarre mooy lu tax genre coow yooyu du am ci maanaam fi nga xam ni ñoom ñi fare fare ci nguur gi fa la seen ay commune nekk doo ko fa dégg amul y a aucun problème mais fi muy am toujours mooy ci ñi ñu jàppee ni ñooñu camp opposant la malheureusement qui organiser qui structuré moo amee nguur te day jaar ci administration pour def forcing après nag li muy jur comme tu dis euh, mooy mooy ñeneen ñi aussi bañ ko buñ ko bañee fan la ñu jëm ci confrontation la ñuy yóbbu ah bu buy continuer di am ni euh, gis nañ ko Pikine euh, buñ ko gisee Médina gis ko feneen fi mu jëm baaxul de. Mhm. baaxul te loolu loolu administration bi ak le ministère de l' intérieur dañu war a def franc jeu. Mhm. Mhm. Dakar Plateau mënut a ñoo xam ne dañu war a voter comme centre de vote. pour ñu nekk Médina Dakar Plateau googu nga xam ni wax nañu am na fa benn wala ñaari chef de quartier Mansour. yoo xam ni dafa mel ni kii di maire bi Alioune Ndoye daf leen bloqué soi-disant parce que ànd ànduñu moom. ces détails là ñii il faut ñu bàyyi moomu ñu dëkk bi nag. ci jamono jooju sax pa seen mouvement gëm sa bopp daal dinay euh, ak coalition euh, bi mu jiitee daawoon daan dem na kon euh, wutali ji ci coalition bu nga xam ne moo daal di dajale PUR PASTEF parti démocratique sénégalais ak Manko taxaw mu doon grande coalition boobee muy wala la coalition des grands Bougane Gueye Dany wax na ne am na ndigaluk ñi nga xam ne ñoo di conférence des leaders yi nga xam ne ñoo séq boobule coalition gëm sa bopp ngir rek waxtaan waxtaan gu yaatu ak coalition bi ni mel ca noonu mi ngi woo opposition bi ñuy joxe eh, seen loxo doon benn ndax eh, jamono ji loole demande sociale la Fatlaye Mbaye Diop moo ñu fa teewloon. grande coalition gëm sa bopp ñu daal di koy eh, taxawal ginnaaw nag ab assemblée générale ki ñu ci tab ba mu jiite ko doon Bougane Gueye Dany mi nga xam ne nag jamono jii mi ngi jàpp ne coalition bi nag moom mooy doon juróomeeli membre ci coalition bi ñu tuddee coalition opposition ñeent ñi. conférence de leaders jox nañu ma quitus ne nañu dem dugg. ci biir coalition boobu ñenn ñi jàppee coalition des grands kon cinquième grand am na. ci noonee la Bougane Gueye di wootee ci ab bennoo ci opposition bi. tey jii ñu ngi leen di déglu Sénégal ñu ngi leen di bàyyi xel li ñu bëgg mooy yéen ñi nekk ci opposition bi ñun ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu dugg ci biir opposition bi. ñun ñii ñu boole suñu doolee doon benn. Euh, président bu grande coalition gëm sa bopp nag di ñaaw lu jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy dund. nañu ne inondation yi bari na Sénégal ñuy massawu surtout waa Touba waa Kër Ñang Ndaamaatu banlieue bu dakaar yi indi na fa ay jafe-jafe yu tara tara tar. ay mouvement ay parti politique ay personnalité daje nag ci grande coalition gëm sa bopp bi nga xam ne jox na cutis eh, kii di seen njiit Bougane Gueye Dany ngir nag mu tijj ay waxtaan ngir gën a yaatal coalition bi mi ngi noonu Haj Mansour coalition euh, gëm sa bopp muy wutali ci euh, coalition bu ñu duppee la euh, coalition des grands gëm sa bopp ndax jamono ji nit war na mën a créer coalition te bañ ko cee boole. non effectivement fi mu fi mu duggee sax baax na. Mhm. parce que dañu dégmal ay élections locale mais toujours li ma leen di wax àndandoo bi ci kaw na alimenté ci suuf. dañu fexe ba travailler ak mouvement yi nekk ci gox-goxaat yi. jàppandalal leen ñoo ñu dugg ci seen bannière ci biir élection locale yi gëm su bopp dina nekk allié bu baax. parce que bokk na ci parti yi nga xam ni wala coalition yi nga xam ni ñoo teel nañoo bàyyi xel. ci mën a joxe suñu seen ay caution mhm. pour am représentativité ci communes yi nekk ci ay gox yu wuute ci Sénégal mhm. loolu fenêtre la buy jàppandal la ñu nekk ci gox goxaat yi te ñu leen di koñee ci wàllu caution yi pour xëy na si bu ñu bëggee am seen liste bopp ci seen commune ñu mën a ñëw dugg ci bannière boobu dem ci élection locale yi mhm. faaw seen coalition ñu gëm ko et li ma leen di lancer comme message nañu xool situation sénégalais yi nañu bàyyi xel ci les changer Sénégal yi dund et nañu ko wan Sénégal yi commencé ko ci élection locale yi ñu dëgmal. ngir kat seen coalition boobu wan Sénégal yi ni ñu am espoir ci soppi fi li fi nekk. ci législative yi nekk ci suñu kanam ak présidentielle yi nekk ci suñu kanam. c'est très important te ñu bàyyi xel itam ci après locales yi ay législative moo ne suñu kanam. diggante 23 janvier ba mois de juillet. nañ fexe ba quel que soit lu ñu calculer ci ay jours ak ay fan. nañu mettre pression boobu kenn dàq élection législative mhm. foofu laa leen di woo euh, déjà coalition gëm sa bopp coalition la ni ni mu ko ni mu woowee boppam alors euh, aujourd'hui est-ce que euh, du yoon wu nu mën a jaar paasan ngir fexe opposition bi yëpp jaar ci nag àndandoo doon benn say ni mu ko waxee moom président Bougane Gueye Dany ne loolu demande sociale la que opposition bi nekk benn je je je y en a qui ñun ay politiciens lañu. Mhm. Euh, parfois bu ñu amee yenn position yi. Mhm. mais moi en tant que sénégalais pas le journaliste en chroniqueur sénégalais. Mhm. damaa kontaan. xam nga lu tax ma kontaan. saa yi punkalu maamu kontaan parce que. c'est ce qu'il fallait faire. je ne CQFD ce qu'il fallait dire. loogu la lii ñu def nii gëm sa bopp. leneen lu ñu fi defoon ñoom nag ñoo am seen ay raison mhm. mais leneen lu ñu fi defoon ci contexte bi parce que saa yi mhm. ba dee da ngaa football da ngaa xam yoon bi mhm. lii mën football la da ngaa xam ne lii fi ne nga def lii lii moo la dëgg mooy que coalition bu toll ni PUR xalifa euh, Ababacar Sall Ousmane Sonko ak Karim Meïssa Wade saa yi wuy ma xulil danga see bokk baa bëggee doon kam ak lii nu def nii lii la Sénégal toll na foo xam ni la réalité et telle que il faut faire face à ñoo xam ni dañu sonal sénégalais yi. Mhm. mais est-ce que mën nga def face ak ñi sonal sénégalais yi am groupe bu taxaw ne ñun dañuy xeex contre ñi. Mhm. ngeen ne non da di bedd ñooñu pour def leneen. Mhm. non stratégiquement ci wàllu jàngat politique. Bougane est sur une pente di màgg. bokkul ak ñi nga xam ni ils sont déjà là. day def nii ci biir def nii bi. mais lii pas bu baax la. dangay jël benn paa nga jàng nga jege nga gën a gis nga gën a récupérer nga gën a bokk. mbir mi mbir mi bokk la daa bokk. Hmm, da bokk ay ca ñu wéyal xibaar yi paasan wax ci wàllug wér-gu-yaram ak jamono ju ñu àddoo ngeen di teelu ci jamonoy nawet eh, ñu commencé di nemmeeku eh, ci tout tànk yi muy ay tawat yu doy waar yu ci mel ni eh, seen yaram yi def góom wala léeg-léeg ñuy socc wala sax léeg-léeg seen biir di daw xale yu ci bëri jamono ji mbir mi mi ngi leen di dal loole nag jamonoy nawet la naam waaye ñi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci wàll wi te nekk ci hôpital Gaspard Camara am na yenn ci ay recommandations yu ñu ci joxee di sàkku ci parents yi ñu gën euh, saytu seen ay doom euh, yu ni mel bu leen dalee ñu mën leen yóbbu gaaw kër docteur ngir ñu mën leen a saytu faj leen ci nu mu gën a gaawee ajalatoy chininga jamono yi bari na ay feebar yu ñu nemmeeku ci tu tànk yi amagul juróomi at. wàccu bi biir bu daw bi taw bi ci la bokk. li gën a bari indi biir buy daw ak wàccu bi. li ko waral bari na. hygiène xale yi dafa des. parfois tamit ci lekk bi. bokk na ci itam ay picc yuy feeñ ci deru xale yi. looloo indi burbuy yi ñuy wax ñun burbuy si fii tàngaay bi la ñàkk yaram bi loolu tamit bu ñu defee ay poudre yooyu rek après day gaaw a jàll mais am na tamit loolu loo xam ne ne du burbuy feebaru si mooy dermatose yi feebar yi lee neex na ñoo faj bu ñu sukkandikoo ci seeni jóob boo fi ñëwee ñaar bu ñu joxee traitement ba ñaar ba ñetti fan bu ma joxaatee rendez-vous boo ñëwee rek incha macha allah xale bi dafay ñëw ak tan bu baax a baax tripédiatre bi lii la digal way jur yi set rek lekk bi na set xale yi nañuy set xam nga dëkkuwaay na set tant bien que mal métti na actuellement nag nawet bi ak euh, kër yi nga xam ne dañoo inondé am na ñoo xam ne day métti si ñoom ndax boo waxee ñu ne amuñu fu ñu dem. ca centre de référence Gaspard Camara lu ëpp fanweeri xale dinañu saytu seen wérgu yaram bés bu jot. Euh, ni ki euh, tey ci altine gi fanweeri fan ci weeruk euh, août la màggal ci àdduna bi yëpp bëccëg bi ñu jagleel ñi réer jamono ju àdduna ngeen di teewlu nag jàpp leen ne ñu ngi leen xayma ci ñaari téeméer ak fukk ci ay junni ci àdduna bi yëpp ci Afrique nag xayma nañu leen ci ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay junni mu doon ay statistiques yi nga xam ne comité bu croix moom moo ko joxe bu ñu sukkandikoo ci CICR ñi nga xamante ne ni réer nañu ñu ci bëri ci crise armée yi la ñuy kenn dootu leen gis crise wala catastrophe wala sax contexte migratoire yi ah, danu ci ah, teewlu Ndeye Khady Diouf ci leeral la lu ëpp ñaar téeméer ak fukki junniy doomu aadama lañu xayma ni ñoom ñoo réer ci àdduna wërngal këpp ñi fësal lu ni mel di réseau mondial bu liens familiaux banqaaso ci croix rouge ak croissant rouge ci Afrique képp comité international bu croix rouge daal dina xayma lu weesu ñeent fukki junni ak doomu aadama yoo xamante ne dañoo réer lu ëpp ci ñoom ñu nemmeeku leen ci réew yu mel ni Nigéria Éthiopie Soudan du Sud Somalie Libye RDC ak Cameroun ñoo rek daal di dajale lu toll ci juróom-ñetti fukk ñaar ci téeméer boo jël ci doomu aadama xayma yi réer ci Afrique CICR di xamle ne lii gën a jëmee kanam réer yooyu le bokk na ci lenn ci fitna lenn ci ay jéye di catastrophe naturelle ba ci wàllu màngaane ak mbëkk mi nga xamante réew yi dañu koy jànkoonteel bu ñu bàyyee xel ba tey xayma yi nga xam ne yi CICR daal dina ko fësal ñeent fukk ak juróom ci téeméer boo jël ci doomu aadama yooyee réer jamono ji ñuy wan gannaaw seeni njaboot ñoom ay mineur la ñu woon jamono ji nag àdduna wërngal këpp di dundu mbaas doon na jafe ci ñi nga xamante ne ñooy waa CICR seen ay recherche ci anam gu mucc ayib li ko waral di matuwaay yi ñu jël ngir wàññi lawinug virus bi Ndeye Khady jërëjëf dañuy wax ci euh, njëg yi nga xam ne soxal na njëgu dund gi jamono ji te mu cher lool lool laal ci marché bi euh, yokk na mu mel ni kon loole euh, li ko sawab du lenn lu dul demande bi nga xam ne ñu ngi ko nemmeeku ci niveau mondial ngir rek accompagner relance économique bi bu ñu sukkandiku ci Jibril bay moom nag xelam dafa màcc jëm ci wàllug koom mu ngi woo état bu Sénégal ci mu dindi ci nu mu gën a gaawee mboolem seen taxes yi nga xam def ci yeneen ci ay ngir. soulager askan wi nga xam ne euh, sa su ne bu ñu demee marché li leen di gën a sonal bokk na ci ay njëg yu yokk euh, dañu ci euh, teewlu ki nga compte rendu bu nanga ko ba ko yokk nemmee ko ay jamono ngi ni sonal na bu baax askan wi bu ñu doyloo économiste bii di Jibril Bey yokkute njëg yi bokk na ci li ko waral di relance économique bi ñu nemmee ci àdduna bi jaarale ko ci demande bi daa yokk bu baax a baax li ni mel mu mel ni kon euh, euh, du boobu élément waaye mënees na koo commenté Hadj Mansour jàpp nañu ne euh, jamono ji moom marché lool laal tegal lan lay wax ndax cherté gi Sénégal est-ce que waroon na tollu jamono ji état ñu di ko woo ci mu wàññi yenn ci ay taxes ngir soulager askan wi. <laughs> élément bi doon jàll xam naa boobu la sax <laughs> xëy na problème technique la ah. parce que waaw parce gëstu woon naa xibaar boobu ci ci hmm. bëccëg bi ñu ko doon jàllale ci journalu 13h bi hmm. dafa am ay ñaari économistes yu am solo yu ci joxe ñaari jàngat yu am solo yoo xam ni damay laaj est-ce que gouvernement bi ñu ngi déglu ram xam-xam yi nekk ci dëkk bi kenn ki dani réew am na foo xam ne bu fa eggee mënta ñàkk mu yokk ay taxam mais tax yooyu dina planifier te leeral ci askan yu mu koy jëlee ni lii moo tax ma yokk ko fii laa ko jëmee wala lii moo ma arrivé ci wàllu crise keneen ki ni mun na nekk mais état bi itam mun mënta aj déficit bi mu am yépp ci yokk tax muy jëlee ko ci askan wi mais moom état bi itam na wàññi train de vie bi nga xam moom lay dund. parce que itam faw mu supporter comme ni population bi supporter gis na ñaari waxu économiste yooyu. donc réew mi nangu nañ ni am nay jafe-jafe ci wàllu koom-koom mais ndax ci askan wi lañ koy roote wala état bi moo war wàññi train de vie am ak charge bi tegu ci koom ñaari question la léegi nag ñoom ñooy xool kan moo gën a yellu ci nga gàddu charge bi li ci ëpp ci pourcentage ñoom nag dañu yal askan à 100 pour cent message bu am solo la. ginnaaw bi ñu ko jàllalee ci wàllu xam-xam et suñu gouvernants yi dañu ko war a dégg xam ni li réew mi soxla ci relance économique li mu soxla ci ay jafe-jafe seen dépense yi moo ko sabab donc dañu wàññi seen dépense yu inutiles yi mhm. ci tournée yeeg dem yeeg euh, détournement yi mhm. détournement yi plan Orsec xoolal détournement bi ci am mhm. ba ñu nee soxla nañu ay moto pompe nangam soxla nañu fukk ñeent ñëw ñeent yooyu ñëw ñaar yi nee nañu dañoo paan benn bi baax na mais amul carburant. Mhm. où est l'argent mhm. yooyu la économiste yi di wax te yooyu lañu ñu war a dégg. Mhm. pour bàyyiloo ci nit ñi xel xam ni état bi l' état est responsable. ci li am tey ci biir réew mi ci ay jafe-jafe askan wi. te ñoom ñu mën a indi solution nañ ko indi kon. Euh, Passane Seck bu dee lii duunal itam seenu kees la gis nañu ne ñu ngi sàkku ci ñoom ñu wàññi taxi yi ndax nag euh, lu mu ci doon lu ne euh, finalité bi askan wi ñoom ñooy endossé li gën a métti. mais mais mais Mansour l'a bien résumé Mohamed. le budget de la présidence du Sénégal est entre soixante-dix quatre-vingts et quatre-vingt-un milliards. Mhm. il a un an deux ans c'est-à-dire bu fekkee yokkul ci diggante bi. Mhm. au temps de Abdoulaye Wade c'était cinquante-deux milliards ñu naan benn milliard par semaine tey est-ce que Sénégal dafa dafa dafa yokku. Mhm. maanaam Sénégal dafa am dafa développé ba suñu budget ci présidence mun a yokkoo noonu. au conseil. conseil économique social environnemental assemblée nationale euh, les ministères mhm. euh, les fonds communs au ministère des finances bu ma ko tuddee nañ ma baal de kilifa yooyu mais mais ak la pléthore d'agences yooyu yëpp mu mel nii dañoo jël sunu ay nit ku si nekk ñu xool fu ñu lay dugal nga gérer amul problème. Mm-hmm. mais population bi koy endossé sans compter les factures ci ci essence bi. Mm-hmm. facture état bi des dépenses dispendieuses de l'État du Sénégal. Mm-hmm. c'est-à-dire que nos ministres qui roulent et nos autorités qui roulent ak des voitures plus chères que le ministre suédois. ou le ministre norvégien boo boolee loolu yëpp. mais li Mansour wax mooy dëgg li nga xam ni crise bu amee. mais yow mi xam ni yaa am ay moyens. yow yaay rësal say moyens tey institution yi fi nekk yëpp budgétivore sonal ñu mais lan moo empêché nguuru Sénégal mu ne bon situation am na relance économique il faut que ñu arrêté lii yëpp ñu wàññi dépenses yi ñu dem mais ils vont jamais le faire si ci jamono jooju sax pa san association ëmb commerçant yeeg industriels yi Sénégal yi ñoom ñu ngi sàkk ñu daal di libéraliser ci nu mu gën gaawee marché bu jëm ci wàllug suukar si ni ki tey lañ doon amal ak janag wooy tasulu xibaar yi ñaawlu nanu itam yokkute gu ñu nemmeeku ci njëg ci euh, njëgu dund yi loolee itam faw état bu Sénégal andi ci ak joyanti ndax lu ji njaaga moom mooy njàkk dañu ci teelu ki àddu yox seen kàddu di Mohamed Seck yokkute prix yi nag ànduñu ci waa association des commerçants industriels du Sénégal ñu ngi woo nguur gi nañu libéraliser marché bi ngir saafara mbir mi. yi suukar si loolu man ñun dañ ñun waa ACIS dañuy wax ne loolu état la neex parce que réew mu toll na Sénégal am ay opérateurs économiques yu toll na yi fi ne ñu jël benn produit denrée de première nécessité jagleel ko benn doomu aadama. muy compagnie sucrière te bu ñu naxantewul ku ne xam ne ni compagnie sucrière lu mat fukki at ak juróom a ngi nii li mu wax ne moom lay jaay ci suukar defaru ko da ko importé kon loolu aussi il faut ñu leeral ko nit ñi. xawaay njiitu réew mi la ñu xaar ci mbir mi te ñu ngi koy woo na jël ay mesures ngir wàññi prix yi. dañuy woo président de la république euh, solennellement dañuy woo président de la république mbooleem point yi nga xam ne souligné nañ ko lenn li ci nekk rek. mu xool mesures ya nga xam ne moom moo ca war mu teg ko ngir indi ci ay saafara. ñoom ñi la di xamle taxi ci port bi dañ ko yokk loolu tamit ñu ngi koy dénoncé. ngir jooyanti loolee lépp am nañu yaakaar jàppale ne conseil national consommation euh, daal dinañ koy woote ni ki euh, ëllëg ci talaata gi euh, ci teewaay ko jëriñ ñu dénk wàllu ko commerce ngir ñu xool ana yenn yoon la ñu a jaar ngir waxtaane njëgu dund gi ni mu yokkee ndax am dinañ ko wàññi am déet loolee lépp ay laaj samp la en tout cas conseil national communication moom ak organisme paritaire la di ab organisme consultatif day xeltu ak itam jël xalaatuk mboolem seen acteurs yi nga xam ne fas cee bokk lan lañ ci mën a jàpp dañu ci ànd ak Safietou Ndiaye lu jëm ci wàllum commerce convoqué ëllëg conseil national de la consomation mu di ndogal boo xamante ne mu ngi am ginnaaw ñaxtu yu bëri yu jóge ci askan wi wala sax ci commerçant yi ci njëgu dund gi nga xamante ne rek dafa yokk bu baax a baax mu mel ni rek situation produit yi nga xamante ne la ñuy gën a consommer moom nag la ñuy waxtaanee ci boobule conseil conseil national de la consommation nekk kon benn organisme paritaire bu nekk ci ginnaaw ministre bi yore lépp lu jëm ci wàllum jaay beeg bi bokk na ci ay objectifs wala sax ay weccoo xalaat ci diggante pouvoir public yi représentant association de défense consommateurs yi waaye itam représentant organisation professionnelle yeeg entreprise yi nga xamante ne ñooy assurer mission de service public bi ci lépp loo xamante ne rek dafa ñeel ay jafe-jafe ci wàllum consommation kon nag conseil national de la consommation mën na saisir ci benn question amal nag ay concertation yoo xamante ne rek dina aboutir ci ñu créer sax léeg-léeg structure technique boo xamante ne dañ ci xalaat ngir mën a proposer ay mesures yoo xamante ne rek mu ngi jëm ci réorganiser benn secteur wala sax éliminer éliminer bépp intermédiaire boo xamante ne rek day indi ay gàllankoor ba mën sax jur yokkute ay njëg mooy tontul gouvernement bi Haj Mansour mooy fexe ba woote ab conseil national de la consommation ngir waxtaanee euh, njëgu dund gi ni mu yokkee jamono ji est-ce que mënees na ci am yaakaar ci euh, ñu wàññi ko. Euh, ñu yaakaar parce que xeex la boo xam ne li ko suuxat moo ko sooke. Hmm. sëb la li ko bënd ngi ci biir loo ciy woote conseil. mais conseil bi dépense la. conseil bi dépense la. jaru ko yow kay xam nga li sabab yokkute gi. muy say taxe douane yoo yokk. mais wàññi ko. bu fekkee am na loo bëgg a suqalee diiwaan ah douane. effectivement douane yi war nañu am mooy yu ñuy liggéeyee parce que li ñuy dugal ci koom-koom gi moo tax. mais du li nga def dong mooy mooy bu mën a suqalee douane. te comme li nga def nii li ñu ko doon def bariwul. façon bii nii ñu ne dañ ci bëgg a renouveler waat xaw ma def lan administration douanière li mu am ci Sénégal ci wàllu histoire bariwul aajuwul def mais trouver benn solution Mohamed affaire bi amul secret président Macky Sall li dem Fouta ñaata million ñaata des centaines de million yu ñu def ci uniquement gàttandu ay nit mm-hmm. est-ce que xam nga moment boobu créé nañu ay jeunes millionnaires xam nga ci nan mm. ci jox leen xaalis pour ñu recruter ay ndaw. yu ñuy importer yóbbu leen Fuuta. jox leen ay t-shirt ay ndaw yu gagné ay marché ay centaines de millions pour ay t-shirt pour ay oto xaalis boobu xajul fenn. Mm. bu ñuy wax am ndajeem consommation ak yooyu noonu. ana ndaje conseil présidentiel sur l' emploi des jeunes. bi mm. amoon jam ñaajo matagul ñeenti weer. avril lan la jur xam nga la moo ci tukkee. Mm. ay ndaw yu ñuy utal ay CDD ñaari at. ay ndaw yoo xam ni boo amee sax maîtrise seen yoon nekku ci pavage la ñu la orienté jëmale fa Mohamed euh, du loolu mooy solution xam nañu leen mooy solution def investissement yi wane waa Sénégal ni leen faale naa leen dooleel entreprise nationaux yi weddi bañ a bañ a bañ a jël lépp lu suñu koom-koom jox ko hmm. multinationales yi soble bii ñuy gas di ko suul xam nga lu ko sabab ay étranger la ñu jox suuf ak ndox exonéré jàpp ndalal leen ñu bay soble bu gën a gaaw ba ñu noppee ñu indoon marché bi ba baykatu Sénégal bi du bay mm. transformation locale bio moom la ñuy jogante ci àdduna bi mm-hmm. Sénégal boo defaree bio fii ñu xam ne fii nga ko defaree mm. bu ko sa mbokk jëndul kenn du ko jënd c'est-à-dire que suñu suñu ñu ñuy gouverner mm-hmm. seen ndaje yi la ñu war a bàyyi te nekk passé à l'acte mm-hmm. génn réew mi ci ak ndóol te wàññi ñoom seen bakkar fegoo gi ñu nekk. Mm. seen privilège yu ñu am. parking automobile bu fukki oto nekk. bu la ci neex wax ngay soppi oto ni ngay soppee kawas. Mm. yooyu moo war a dakk ci Sénégal te xam nañu ko te ñoom ñoo koy dund bi ci des. Mm. fu may jeexale mooy détournement yi. mais moo xam ne diggante deux mille quinze ak léegi. ñaata milliards la ay ay organes de contrôle de l' état. ñaata milliards la ñu cité ay nit ci seen ay gestion ni manquement la. te mujjul fenn lu dul promotion la ñu am. Hmm. dañu wax ci loolu moo gën dund gu seex gi xam nañu li ko seexal. kon mun nañu jàpp ne euh, Paasane Seck conseil national consommation bi ni commencé di waxee ay bëlde rek la. oui ma la dernière dama la wax racket xam nga racketeur. Hmm. nee naa la ki nga xam daa racket raket hmm. du du du xool euh, nu mu gën a rafetee nu mu gën a jeg xam muy def. teg xel au seizième siècle français tartuffe lañ leen daan wooyee mooy ñi nga xam dañuy naxaate rek. dañuy yiw jekk. boo leen gisee ñoom la. Hmm. fekk ñoo raw Bernard Madoff mi nga xam ni crise immobilière bu 2008 ba moo ko indiwoon ca États-Unis tas àdduna bi. di hmm. kat bu mag financier bu l'un des meilleurs au monde mais ndekete ab càcc ga rëy la ga ngande goo xam ni. Hmm. kenn xamul nu mu toll. Mohamed conseil présidentiel yi doon am fii ci dëkk yi. maatam Podor Ndar ba Ndakaaru dëkk bu nekk ñu dig ay milliards. fan la mujj kenn waxatu si. Euh, hôpitaux yi ñu inauguré Mouhamed Mansour mhm. bu yàggul ñu ngi may wax hôpitalu Kédougou bi rek boobu buñ ci gëstoo dañuy découvrir que na euh, inauguré nañ ko mais ne nekkagul lu fonctionnel comme ni ñu ko yaakaaree. Mhm. Euh, amaguñu ay médecins comme ni ñu ko foogee waa léegi est-ce que Sénégal mën na dundee noonu ci mhm. ci ñu ñuy wax dara annoncé ñu ko ci mille milliards yu ñu def ci coronavirus te feeñul fenn ci soixante-neuf milliards yu ñu jox ministère de la santé te ministère de la santé tey la waa la gën a ay mais saa yi naxaate bi baaxul. ñu wax ci euh, gare routière bu Ziguinchor jamono ji ku ko bëgg jiitee ti faw nga remplir ay euh, critères wala sax ay conditions euh, transporteur rek chauffeur yu ne ca capital boobee daal dinañ amal ab waxtaan bu yaatu ci ab assemblée générale waxtaanee ab règlement intérieur yu ñu daal di xaatim génnee ko ci ni seen ay garage di doxee jamono ji ña nga woon kon ci ab assemblée générale ci centre culturel bu régional bu nekk ci Ziguinchor dañ ciy teelu Papis Touré moom mooy président. bilan bi euh, dikkaat ci euh, boobu lekk journée ak Abdourahmane Diallo ñu jégalu ci boobu boobule élément euh, ak euh, qualité euh, sonore bi dañuy barastiku dem ca Kaolack Ndangaan foofe nag ginnaaw gi ba ñu toogee am jafe-jafe jëm ci wàllug engrais rawatina ci monde rural bi jàppale ne itam chambre bu commerce ak industrie bu kawlak daal di nay lëkkaloo ak jëriñ gu ñu dénk wàllug mbay mi ministre de l' agriculture ngir joxe ci groupement yi nga xam ne ñoo ëmb groupement de femmes ya fa nekk yëngatu ci wàllug mbay enveloppe bu toll kon ci téeméer ak juróom-benni fukk ci ay millions ci sunu koppar Serigne moom mooy président bu chambre bu commerce bu Kaolack ñu teewloo ko ak Alioune Kane. loolu nag dafa nekk loo xam ne depuis dix ans ñu ngi koy def liñ ci financé gun yëpp daanaka mën na plus de dépassé na un milliard huit cent. ñaareel ba mooy tey financement bi ñu def cent quarante neuf la. Euh, muy cent quarante neuf euh, euh, kii groupement cent quarante neuf groupement ah, groupement bu ne comme ni mu la ko waxee ëpp nañ lu mat cent personnes ah, loolu nag dafa nekk loo xam ne nii dañ ci am mbégte ci loo xam ne nii li muy jur ëllëg dafa am doole ci économie Sénégal ci économie région bi ak économie critères yi li ci ëpp mooy nga nekk agriculteur am tool te sa dossier baax et eh, daanaka ñii daanaka euh, ëpp na euh, lu mat ay at ñoom chaque fois dañ koy jël suñ bayee ba noppi ñëw waat ko ñu joxaat leen ko yaatalaat ko daal. Hadj Mansour ci sunu ay édition bëri waa naay nit yu fiy jooy ci mbirum anglais ndax engrais ndax lii début de solution la par rapport ak euh, ñi ñu financé di ay groupement de femmes toll ci ay téeméer. mais solution la. Mhm. xam nga xam nga lii dong yoon la buy wane tey ñaata opérateur économique yu mel ni Serigne Mboup. Mhm. yu bu ñu leen joxoon opportunité waxuma leen jox leen financement de parce que soxlawuñu ko. mais opportunité rek pour ñu contribuer ci biir askan wi Sénégal dina passé fii mu nekk. Mm. mais boo defee benn yoon def ñaari yoon. commune ba nga koy defee maire baa xeex yow da ngay dëkk ci dëkk jëlee ambulance bitim réew indi ko fii nii pour maire bi signer la rek ñu wàññi woyofal la douane bi ciy tege donc maire yi dañuy bañ. parce que nee nañ boo ñëwee askan wi dañuy bàyyi ci yow xel dañu lay bëgg da ngay seen wujj. Mm. cest à ci ay kilifa. ak ñàkk yërmande gi ñu jëmale ci Sénégal gale yi nga dul comprendre moo tax gis nga affaire engrais bi nii. Mm. yow mënoo gëm ni Sénégal engrais def fi cher. Mm. mënoo ko gëm ni engrais def fi jafe. bu fekkee wax nañu la quantité bi ICS di produit par jour. Mm-hmm. laajal benn ingénieur man xam naa ci kenn. koo xam ne ile est diplômé en arabe. mu ingénieur la mu ngi liggéeye ICS. Mm. bu la waxee quota wu engrais bi ñuy produit par jour mënoo gëm ni li ñuy jaayee saako engrais Sénégal moom lañ koy jaayee. indien indien yi koy yi koy exploité mhm. bu ñu ko dañ koy transporté ba noppi mu gën a yomb ci seen dëkk lañu koy jaaye fii Sénégal mhm. ba noppi ñoom ñoo ci gën a ëpp accès te mboore gii lañ koy defaree tey bëgg daa nga xudóos lañ koy defaree mhm. nga wane ni suñu suñu gouvernant yi wallaay faale guñ ñu wallaay kippee guñ ñu ba léegi xamaguñu gis nga li Ousmane Sonko di wax anti système man déggeewuma ko ni ko Sénégal yi bëri déggee ah. du affaire xeex wala guerre wala jëli ak cest ci wàllu gestion nga xam ni moomeelu askan wi la soppi yow ba ngay solo lu mu la neex di wax te kenn du ko dindi hmm. di jël ay dogal mëmelu askan woowu nga war a boole askan muy gest muy gestion inclusive dañ leen ci war a boole hmm. xoolal tey exploita exploitation ndox mi ndoxum Sénégal yépp ni mu toll hmm. Sénégal amu ci kàddu gu muy wax am nga ministre hydraulique amul sens parce que ndox mi ay étranger ñoo koy exploité muy seen eau ndoxum rural bi offshore mu ngi fi amul sens parce que waa Aquatech ñoo koy exploité te ñu ni kenn du leen tudd te ñuy mucc deretu askan wi di def tey goo xam ni Euh, kenn du leen tudd boo leen tuddee sous préfet tey Lambaye Lambaye tey ma jox la comme information. Mhm. Lambaye gépp dañoo génn def benn ndaje boo xamante ni bii dañuy dootuñu tëdd nelaw mukk fii ak dàqewuñu fa sous préfet ba fa nekk. Mhm. parce bakka fegoo gi muy defal waa Aquatec pour détruire askan wi. ñun ko duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg genre yu mel noonu bu ñu fa tollee ci Sénégal. Hmm. dañu soxla ay genre yu mel ni Serigne Mboup. ay genre yu mel ni Bougane ay genre yu mel ñi nga xam dañuy investir pour ay jeunes di fa liggéey. Hmm. pour mën a hmm. taxaw participer ci liy tabax Sénégal. en tout cas at wi moom euh, paasan nemmeeku nañu ne monde rural bi am nañu jafe-jafe ci wàllu engrais euh, Kaolack tàmbali na nañu am début de solution yeneen gox yi yan yoon la war a mën a jaar ngir xëy na génne leen ci jafe-jafe gi nekk mais xam nga Mansour exemple bi mu la jox tey bu état wu Sénégal taxawoon. ne Indien yi bon dama bëgg bu saison bi tollee fenn fi. Mhm. ñu war a jub hivernage dama bëgg ngeen jox euh, engrais tous les agriculteurs du Sénégal. Mhm. état wu Sénégal da koy décider rek. Indien yi mu neex leen mu naqari leen. Mhm. day am kon ñii nga xam ne dañ leen war a jaay engrais sax boo xefee duñ ko jënd. du moment que ñu ngi koy defaree suñu biir suuf mu ngi jur mu ngi am résidu di am résultat mais xam nga euh, Mouhamed. volonté. Mhm. maanaam bëgg-bëgg. njiit su fekkee passionné wul. pour ñi mu jiite. pour mu dimbali leen dina jafe xool leen comment ñi ñi nga xam ne ñooy administrer Sénégal ñoo koy gérer. Mhm. autorités yi xool leen euh, Mouhamed jël sa téléphone. Mhm. ni ñuy waxtaan ak yow niveau bi ñuy toll ak niveau de discussion. ak leen di intéressé maanaam temps bi ñu lay consacré si boo ñëwee wax fula ak rapidité. de réceptivité si bu fekkee danga am projet bu important war leen ko mën a eggee. ci processus pour nga yegg ci ñoom dafay difficile déjà après boo yeggee ci ñoom bon d'accord on va voir ce sens-là qui manque de yitte manque de de d'attention loolu moo tax gars yi seen résultat du baax maanaam Pastef bi ngay am ci yëg ci wet ci fonk Mansour dafa ñëw sama bureau mhm. indil ma benn projet je donne l'exemple de Momar Gueye bi nga xam ni moom moo initié le TER sunu papa jooju moo ko xalaat moo ko créé ci nguuru Abdoulaye Wade mu dem jox ko kilifa bu ñuy wax Abdou Ndéné Sall ngir mi teer ci leneen maanaam moom keroog la gëj a gis ñooñu. keroog la gëj a dégg waxi teer ba bi muy toog moom. dégg ñu naan ñu ngi lancé teer mu def ay lettres 2016 ba 2021. munul gis président Macky Sall munul jot ci moom munul am réponse mujj gi muy wër télévision yi ba ñëw ci ñun waaw léegi ngeen foog ne affaire bi dina doxe noonu. du dox jërëjëf jërëjëf Pa Assane Seck mbokk yi ñu tàbbi ci seen xalaat. asalaamaaleykum ñu ngi leen siyaare bu baax fii ci Touba Guy Jot waaw suñu néeg bi fi ñu toll nii la xam na ne kër gi ñetti fan a ngi nii wallaahi génn toogaan sax mu ne génn dem marché ndugg toog mënuñ ko def wallaahi ñun jëndeen ñoo leen ñoo leen may añ bàkki Sëñ Tuubaa gis ngeen kër gi seen ko nii fii fépp fépp fépp fees gis ngeen ko nii ki ngeen néegi nii euh, di am moo bëgg a sànni ci dëkk bi tuuti rek Euh, Sénégal nekk na dëkk boo xam ni vraiment sunu autorité yi seetaan nañu population Sénégal parce que ñun ñu mel ni ñun ñu dëkk benn barak yëmbal euh, ñu ngi fa defaroon benn tali depuis xaw ma ñaata ak rek ni tali bi benn voie lañ deux voies lañ ko préparé mais benn voie la nekk. benn voie bi canal lañ fa jaarale canal bi fi mu toll nii boo nemee kàmb ya ca nekk bu tawee day rempli ndox waxuma oto sax waaye nit bu ci daanoo day dee. waaw ñu ngi ñu ngi jaar lancé appel état Sénégal ah bu dee ñoo tàmbali travaux yooyu mu ñëw yeggali ko bu dee maire bi moo ko tàmbali mu ñëw yeggali ko parce que vraiment il est temps que mu ñëw yeggali ko wasalaam. mais man lu ma jaaxal mooy lan moo tax France seen peuple boo xoolee soixante millions habitants la te boo xoolee quatorze pays France colonisé di controle seen xaalis plus de deux cent quatre-vingts millions d' habitants si quatorze pays yooyu noonu France ose di leen contrôler. di leen imposer lu nekk lan mooy responsabilité tey ñun africains yi te médias yi journalistes yu bëri war ngay imposer lu xamal askan yu histoire dëgg-dëgg mooy lan ndax Sarkozy ñëw na Dakar en 2007 mu ne leen problème des africains parce que l'Afrique n'a pas d'histoire te loolu du dëgg lu ko waral ndax ñun ñu xamal suñu askan ñun ñooy ñan loolu mooy problème bi. climatiseur amul ci saal bi kii damaa xëy mu ne ma sama doom bi xale yëpp fanaanee jooy. yooyu di leen mat tàngaay di leen bëgg a rey jour boobu laa leen rawale génne leen ci salle bi yóbbu leen ca salle ba salle bi ma leen ci yóbbu man major maa doon nettoyé vitres yi ak lamp yi di fobeere pour rawale samay malade pour xale yi nekk ci jàmm waa léegi ñu ne lool kenn du ko wax moom mooy kan yaa beaucoup de cas sociaux Sénégal la ñu nekk am na ñoo xam ne ils n'ont pas les possibilités de faire la régularisation mënuñu fay mais du ko fayul ñu bloqué la ci buntu man major dama dem ba dama rus parce que bu mu ñu fayul ñun tous les trois mois ñu woo ñu daal di ñu laaj évaluation des recettes yow ki ak ki ak kii ba mu entré lan la dugal looloo tax may joxe sama formalité administrative ku mënul ma yóbbu la service social mais mën nañu Sénégal presque kenn mënul waa léegi. dañuy bàyyi bâtiment bi ndox mi sotteeku ci kaw malade yi inondation ci biir saal yi yooyu di matt xale yi tàngoor bi di leen bëgg a rey léegi nag mu ne kenn du ko wax moom mooy kan moom mooy kan wax mu génn ci rajo yi naan laaj leen chef de service pavillon O wala pavillon M pavillon O ak M baaxul bâtiment yi ñu mu jël ku ñëw di def visite ci bâtiment yu bees yi la lay dugal mais du la dugal O du la dugal M moom mooy kan moom mooy kan mi ngi noonu mbokk yi mën ngeen euh, def ñoom envoyé seen vidéo joxe seenuk euh, xalaat ci euh, numéro whatsapp bu groupe des médias El Hadj Mansour sax